salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général de Mouride yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ci kilifteefu Serigne Abo Mouhamed Mbacké xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Mamoun gépp Serigne Cheikh Anta Mbacké xalifa Serigne Modou Rokhaya Mbacké ak mboolem sëti maam Cheikh Anta Mbacké yépp alhaaji maam Omar Dia xalifa alhaaji Ibrahima Dia Serigne Abdou Khadir Dia xalifa alhaaji Serigne Dia. Serigne Abdou Dia Safoor xalifa Serigne Moustapha Dia Serigne Jabel Dia xalifa Serigne Ibrahima Bayti Dia Serigne Mouhamadul Mamoun Dia xalifa Serigne Cheikh Dia ak mbooleem njabootug alaaji Serigne Dia gépp nag eh, Serigne Samba saw di jëwriñi kër alhaaji Sow ñu gën ko miin ci Serigne Jàpp Sow ñooy am mbégte di leen yëgal bisu fàttaliku ak ñaanal seen sëriñ doonoon seen waajur doonoon seen lépp di alhaaji Ibrahima Dia moom Cheikh Sidil Muxtaar maam Cheikh Anta bis boobu nag ren jàpp nañ ko fukki fan ak juróom ci weeru rakki gàmmu dëppoo ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre ñu di ko amale nag ca seen kër ga nekk ca Pikine fañ ko baaxoo amale alhaaji Samba Sow xalifa sëriñ Njàpp Sow di ko fàttali nag bokk yépp nag di leen xamal ne bis bi ween dañ koo darajaale alhaaji Mbàkke jenn moom alhaaji Serigne de ca njaareem ñu koy yëgal nag mbooleem njabootuk alhaaji Mbàkke jenn gépp rawatina bokk ya dëkke njaareem Serigne Samba Sow nag di leen xamal ne dañ fa amal njàngum alquran moo xamante ni bii danañ ko xëy tàmbali ko ci suba gi incha allahu rabbi ka koy jiite di Serigne màmmoor ja ànd ko ak imam Serigne Modou Guèye ñi di ko yëgal jullit yëpp nag ak taalibe yëpp nag ak xarit yëpp ak soppe yëpp bàyyiwuñu kenn eh, di ko fàttali itam Serigne Mamor Mbacke xam sa diine mi nga xam ne moo baaxoo di def waxtaan wi. suñu julee tàkkusaan ba noppi danañ def waxtaanu diine wa ngir ñaanal mbooloo mi sëriñ Samba saw ak mbooleem njabootuk alaaj njàpp saw gépp nag di ko yëgal jullit yëpp ak xarit yëpp ak taalibe yëpp di ci séntu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu